Euh, dafa am benn bateau benn méthanier euh, benn bateau usine. Mhm. boo xam ni dafay ngacc gaz. Mhm. Euh, bu tudd Carmol LNGT Africa. Mhm. bu ñu defaree Singapour jóge na foofu di ñëw Sénégal dafay ñëw pour ngacc gaz bi nekk Saint-Louis euh, te balaa muy ñëw def naa ay essai en haute mer foofu Singapour ba lépp sotti mu ngi ñëw dina ñëw fin avril début mai bu ñëwee fin avril début mai ci la ñuy commencé ngacc gaz bi nekk Saint-Louis juin la ñuy commencé tirer euh, seen fës gaz te autorités yi foo dem ñun la deux mille vingt trois la ñuy commencé exploitation gaz bi. Mhm. man waxoon naa bu yàgg ñu deux mille vingt et un la ñuy bi te bateau bi prouvé na ko. Mhm. donc euh, li ci li ci. ñoo ñëw dans moins d'un mois trois semaines. trois semaines un mois maximum. voilà un mois maximum ñoo ñoo ñoo na presque. Mhm. mais bu ñëwee mois de juin lay lay opérationnel. léegi li ci déplorable. te ma war ci def information bu gën a yaatu. mooy gaz boobu. dañ ko waroon a jox Senelec pour mu defaroon ñu courant bu yomb. léegi gaz boobu kenn joxatu ko Senelec pour mu defaral ñu courant bu yomb. dañ koy jox benn bateau turc buy muyee euh, au large de du port de Dakar. Euh, boo xam ni dañ ko fi affrété woon bu am douze turbines à gaz. boobu dafa doon jéggaani méthane. mooy mooy mooy la meilleure qualité de gaz au monde biy jóge Saint-Louis. da daan jéggaani méthane bitim réew pour lakk ko def ko courant jaay ko Senelec Senelec jaay ñu ko. Mhm. ñun ñu créé à gaz turbine à gaz dañu loué ji benn bateau <coughs> bateau turc Carmol boobu di ñëw aussi filiale société boobu di ñu jaay courant la déjà basé à Bel Air mhm. c'est toujours les Turcs léegi bateau boobu lay indil gaz ak ñoom Samuel Sarr Arona Dia nga xam ni c'est conseil conseiller la présidence mhm. ñoom dañu am un projet de construction d'une turbine à gaz biir Sénélec ñoom ak Ablaye Dia Sénico ak Matar Ba bu Locafrique bi nga xam ni moom mooy actionnaire majoritaire au niveau de la SAR ñoom ak seen banque bu ñuy wax euh, euh, Coris Bank Coris Bank seen banque la ñoom c'est une banque de la présidence banque boo xam ni moo détenir doon quatorze et pour cent de la BDK mm-hmm. commencé nañu SME partout Dakar seen banque la euh, Coris Bank ñoo leen ñoo leen lebal nee nañu deux cent vingt sept milliards pour ñoom ñu jël suñu gaz lakk ko jaay ñu courant jaay courant bi Senelec alors qu'on a une société nationale <laughs> d'électricité bu ñu invoqué mukk secteur privé wala préférence nationale parce que on avait un projet gas to power bi nga xam ne dañu waroon a jël gaz bi jox ko Senelec pour courant bi wàcc léegi dañ ko jox ay particulier le cartel de la présidence que je dénonce donc l'un de ses conseillers Arona Dia ak ñeneen am na ñeneen nag am na sax ay ingénieurs Sénégal ci dinaa leen ci def dossier fii Sénégal set lay xewee dinaa euh, leen jox tous les tenants et les aboutissants de ce projet la et de ce programme là ñu wax ba gën a sore euh, li nga xam ne moom laa évoqué fii mais mais maa ngi déplorer li nga xam ne ñépp ñoo ko bokk ñu bokk jox ay privé pour ñu jaay ñu ko moomeelu Sénégal ay privé jaay suñu société nationale courant waxuma la sax gaz bi gaz bi sax mënul nañ ci def intermédiation lekk ci xaalis mais courant bi ñoom ñoo koy togg sax jaay ñoo koy lakk transformé jaay ko jaay ko mhm. Senelec lu luwee benn bateau au lieu que ñun xam nga président nee trois cent cinquante milliards pour emploi des jeunes mhm. dëkk bi dafa tàng rek paf trois cent cinquante milliards mhm. mais mais mais centrale ñoom Samuel bi trois cent vingt milliards la donc ça veut dire que c' dans les l' état BRT bi trois cent milliards la c' est dans les cordes de l' au lieu ñu renforcer les capacités d'une société nationale d'électricité c'est la seule société nationale d'électricité loolu euh, c'est mafieux et nañ ko dénoncer te projet boobu dañu poser ay actes citoyens pour mu bañ a aboutir incha allah te loolu il faut que ñëpp xam ko moo tax encore une fois on attend le régime sur ses engagements parce que loolu euh, bu mu nelaw de parce que ñun nelawuñu dañuy xaar parce que loolu suñu àq ak suñu yelleef la suñu droit la xale yi kenn waru leen bindal non inscrit ci seen carte d'identité c'est droit deux mille vingt et un dafa war a am élection deux mille vingt deux dafa war a am élection deux mille vingt quatre dafa war am élection c' est calendrier républicain qui est défini comme ça. Mm-hmm. donc président Macky Sall amul droit à un troisième mandat parce que constitution wax na ko war na ko déclarer publiquement parce que xeex yi am ni yëpp dañu njort ni tout ce qu'il fait c' pour un troisième mandat et puis révélation moi j'ai été arrêté mm-hmm. à la est que xam nga sama enquête on m'a posé une question sur le troisième mandat. ah bon wallaahi c'est sur mon procès verbal. te yow waxoo si woon benn yoon si sa audio bi ah. n'a rien à voir avec le troisième mandat. <laughs> en pleine audition un monsieur bien il donne à l'inspecteur un papier. Mm. ni ko xoolal nooy dugalee question bi. Mm. alors ah, je regarde l'inspecteur je lan ngeen may dugalal ci encore il sourit et non monsieur Sène c'est rien c'est juste des questions et réponses question réponse rek la quoi. Mm-hmm. et on m'a posé une question sur le troisième mandat. Mm-hmm. on m'a posé une question sur mes rapports avec le PASTEF et avec Ousmane Sonko. Mm-hmm. donc ñoom je leur ai répondu je je ma réponse mais ñoom xam nañu li ma leen tontu. Euh, pour pour me résumer j'ai été constant dans mes positions sur le troisième mandat. dans mes réponses. Parce que moi, je répondais pas à l'enquêteur, je répondais à l'envoyeur. Parce que la question est tombée. <laughs> L'enquête était bouclée. Donc, troisième mandat devait leen préoccuper. Donc, nous devons prononcer clairement, Macky Sall, nous prononcer clairement, mais affaire le troisième mandat. Bi. loolu nañ ko teg fële. man <laughs> présenté wu pour troisième mandat jàmm dellusi ñu liggéey ñu xool li ko dese luñ ko ci mën a muñal ak luñ ko ci mënta muñal. parce que moom bu fekkee ni dafay jéem a forcer dañ koy jàpp de. Hmm. ay train de casserole il a des dossiers mook ñu ko wër yëpp bu ñu bëggee jàmm nañu yombalal askan bi mbiram nañu delloo askan bi souveraineté hmm. bu boobaa yërmande mën na ñëw. Hmm. ñoom setuñu. ñu war a am ñu leen téye lañu ñoom bugguñu élection législative parce que xam nañu lu tax bugguñu élection législative. parce que majorité bi bu changer de camp c'est lourd de signification ñoom xam nañu ce que ça signifie du ma ko wax tey mhm. mais ñoom xam nañu loolu mooy lan Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. juste rappeler aux internautes yéen a ngi seen biir émission le rendez-vous euh, de Sénégal 7 rendez-vous hebdomadaire bi nga xam ne dañ koy euh, amal chaque euh, jeudi ah. suñu chaîne avec monsieur Clédor ñuy amal waxtaan bu am solo par rapport ak tolluwaayu réew mi Clédor. tout au long de cette semaine aussi am na benn discours bu doy waar ay débat par rapport ak waaso fii au niveau du Sénégal. est-ce que ça vous fait est-ce que euh, le Sénégal ne gagnerait pas à retrouver sa sénégalité bi nga xam ne nit yi moom lañ ko xamee woon. waaw mais permettez-moi. Mhm. man parce que saa yu ma poser question boobu damay sàkku précision. Mhm. foo déggee ñuy wax waxu waaso kan moo ko wax waxu ethnie kan mooy wax waxu ethnie ba nga inquiété wu ci question bi. bon les deux camps que, que euh, ce sont les politiciens. les politiciens mais je vais être soit précise quel politicien qui. les les politiciens. parce que on qui? a entendu ñu féetoo si. moi je l'ai dit. Euh, non. qui l'a dit. les deux camps. les oui. deux camps yi nga xam ne mun nañu wax ne fu mu toll nii se regarde en chien de fayance bon si euh, gis nañu aussi. Euh, Madiambal Diagne qui l'a qui l'a dit qui a qui a parlé euh, d'ethnicisme dans l'opposition <laughs> personne. Bon, Personne. Je, je, ne vais pas dire que Ousmane Sonko a parlé euh, d'ethnicisme euh, dans l'opposition, mais amna wax que tu en Casamance, de que le, le, président de la République n'aime pas la Casamance. La Casamance n'est pas une ethnie, c'est une région. C'est une région, attends, une qui a été délaissée, attends, qui a qui, une région qui, qui est juste un potentiel. à sensibilité, Oui, mais attends, il faut faire attention. Nous voilà. sommes euh, dans le débat public. tout le monde nous regarde. Mm-hmm. La Casamance est une région, c'est pas une ethnie. Mm-hmm. C'est une région qui est enclavée. Qui est enclavée, tu as vu, on fait le BRT ici. Mm-hmm. On a creusé tout Dakar pour faire un, un, un, un bus qui va à Guédiawaye, 18 km. On va mettre combien milliards pour 18 km. Le BRT là, il dépasse pas Guédiawaye. C'est pour les gens qui ont leur maison euh, sur le front de mer là-bas, nouvellement découpée. on a abattu la forêt classée et tout ça loolu le BRT c'est ça mais certes mais on parle j'en viens on parle de Casamance. Mm-hmm. Euh, le TER qui est qui est qui qui bouge pas c'est 1200 milliards alors que le besoin de désenclavement de de la Casamance a toujours été un problème heureusement qu'il y a la Transgambienne euh, on a réalisé le pont.